waaw basket Sénégal moom dafa mel ni ñëpp teg nañ seen bët ah, da nga daan dégg équipe nationale muy dox ñëpp di ko suivre au niveau national international mais léegi dañu xool que ne dafa dellu ginnaaw et donc loolu bu amee c'est parce que équipe dafa remplacer beneen équipe équipe bi ñëw kon ça veut dire moom moo liggéeyul li mu war def mais bu ko defoon Sénégal yi danañ gën a sentir l'équipe nationale sénégalaise derrière ñoom quoi donc et ñi nga senior et tout cela danañ sentir que ne le peuple sénégalais est derrière ñoom mais loolu amul parce que équipe amul boo xamante ni mën nañ ci sukkandiku parce que sport foo la kaf agréé et donc c' est juste pour fédérer bu demee nag bay diviser rek ça pose problème. parce boo ko xoolee gars yi ñoo nekk ci comme ça ñi nga xamante ni ñoo nekk ci CRBS ak ñu ci nekkul te nekk ñoo xam ne ni ay techniciens la nekk ci seen dëkk yi ñoom ñooy décarcassé wu di former noonu mais bu fekkee da ngay former xale at xale bi du dem tàggat boppam moog zéro ñoo yam donc xale boo koy tàggat muy def ay béyaba du basket donc bu paree da ko war a tàggat ak ay moromam muy confrontation comme tournoi des jeunes boobu nga fi daan dégg ñu naan tournoi cadet cadet et tout cela parce que boo ko xoolee si leen daan tànnee jeunes yi nga xamante ni jugee ci région yi pour mën a intégrer l' équipe nationale mais boo ko xoolee l' nationale dafa resté si benn côté rek entre Dakar lañ lay wax Thiès Saint-Louis denk boo xam ne am nañu fu bari ñoo xamante ni y a des jeunes les euh, les les régions les plus reculées ou bien département les plus reculés exemple que je donne su waxoon ne danañ ñëw fi Mbacké ñu si waa CRBS ñu ñi duñ ko gëm parce que Mbacké nekkul dëkk basket mais au moins sentir nañ ne yaa ñoo xam ne ni ñu ngi fiy def basket ay xale yu bari di def basket moo tax ñoom aussi ñu déplacé pour ñëw fi mënoon nañ ko defee feneen foo xam ne ni dëkku basket la mais dañu choisir Mbacké pour defe ko fi kon mu nekk loo xamante ni par parloo wuñ ci intérêt basket bi moo ñu tax a jóg donc on a aucun problème avec Babacar Ndiaye problème bi ñu am mooy le basketball sénégalais te loolu lañ bëgg a lijjanti mu nekkaat fi mu waroon a nekkaat te loolu leen rek moo ko mën mooy waxtaan moom moo koy mën mais du xuloo du xeex te ñun xuloowuñ xeexuñu. li ma bëgg a wax si euh, si basket bi mais surtout man ministre des sports laay waxal euh, Matar Ba que Babacar forfaiture bu mu bëgg def si biir basket bi du jàll. il faut que loolu mu dugg si biir boppam mu leer si boppu nit parce que Babacar mu ngi commencé suuxal basket bi Babacar intérêt rek la xam xamul leneen c'est-à-dire que nax nit ñi jox leen ay post ainsi de suite lii yëpp pour éviter une contestation te waxoon naa ko Babacar Ndialbène c'est-à-dire que il a il a l'habitude de dire non j'ai élu à l'unanimité après abolitisme c'est fini ça l'unanimité jeex na. il faut que loolu mu xam et moi je dis xaalis bi nga xamee ne basket bi am na ko en 2017 ak 2019 ba nga xamee ne mënul organiser u que ñoom xam nañ ne que u bi du ko financer donc ñoom ñoo koy financer alors léegi ñu ngi benn samba booy bu leen mën a financer seen U18 quel que soit le résultat lu ñu fa am rek baax na donc ces gens là développé ñu basket Matar ñii développé ñu basket Babacar Ndiaye pourquoi il veut changer les textes lenn rek moo ko si suuxal lenn rek si suma xalaat la de kooku suma réflexion bopp la euh, organisé na fii euh, championnat d'Afrique 2019 si magnifique stade bi nga xamee ne président de la république jagaleel na ko basket yi vraiment ñu ngi koy remercier di ko di ko nuyu au passage mais loolu ça été une surprise la woon si Babacar surprise bi mooy lan moom mooy le fait mu gis jour demi-finale bi ak finale bi engouement bi nga xamee ne am na stade bi 17000 places tout le monde se demandait ndegam ndegem ce que genn wàll bi sax dana am nit mais yàlla def jour boobu stade bi dafa duye duye duye de ba bàyyi plus de 7000 euh, personnes dehors donc euh, il s'est dit que ak li mu retiré ci recette ñi ngi wax 80 millions ñi ngi wax 100 millions man mun na wax sax lu plus. il s'est dit que ah xëy na peut-être que su ma organiser beneen championnat d'Afrique fii dinaa am à peu près le double de ça mais pour organiser beneen championnat d'Afrique. Eh ba 2024 rek la ko mën def loolu rek boo tax 2024 pour les garçons parce que les filles là jeex na benn yoon la koy organiser prochain xëy na peut être dans 10 15 ans léegi garçons yi moo des 2024 ak possibilité gagner coupe bi fii ak possibilité nga xam ne derrière ça li nga xam ne ay récompense nga xam ne mën na am ak recette bu mën a retirer si si si si arena bi moo tax Babacar Ndiaye mu ngi rey boppam pour pouvoir toogaat si boppu basket bi ñun nag waa CRBS ñu ne ministre bi. nee na day def assemblée générale def assemblée assemblée d'information le matin def assemblée générale l'après-midi mais loolu ñu ko gis ci àdduna beneen acte bi nga xamee ne posé naa wax naa ko moom mooy Boniface Ndong suñu xarit Boniface Ndong kenn du wax jaar-jaar Boniface Ndong jël nañu jox nañ ko équipe nationale c'est bien ñun ñëpp dañoo tàccu man si ñu jëkk a si laa bokk mais na nga mënee jël équipe nga jox ko nit muy dem di def ay préparation pour mën a qualifier wu et puis amuloo benn préparation ci sa biir dëkk y a rien donc Boniface Ndong obligé mu jël vingt cinq joueurs si li ma dégg si suba vingt cinq joueurs avec le forfait de de Gorgui vingt cinq joueurs est-ce que du am yeneen forfait d'ailleurs parce que man musuma gis lii c'est la première fois que je vois ça ngay dem euh, il éliminatoire Afrobasket amul entraînement amul préparation amul dara nga jël vingt cinq joueurs ba pare jël xaalis l'argent lu ñuy wax l'argent public nga jël vingt cinq billets vingt cinq chambres d'hôtel vingt cinq repas dîner déjeuner ak prime pour ñu dem foofu pour que entraîneur bi xool parce que amul temps pour xool ko fii pour mu xool Kigali ñan la mën a joué loo autant mieux que man de si sama xalaat euh, autant mieux mu choisir fii douze joueurs fii ñu dem ak ñoom parce que lu muy def fële bu ko defee fii le résultat sera exactement le même et ça moi je encore une fois lii dafay ñaaw parce que xaalis bi ñuy yàq foofu c'est l'argent public on pas s'amuser à ça donc Matar Ba si vous si vous êtes au courant de ça il faut arrêter ce monsieur là parce que ce monsieur là est en train de faire une forfaiture à la tête du basket sénégalais mais qui ne dit pas son nom et CRBS vraiment dañu ñaawlu ñaawlu ba fi fu fu fu mu mënta